d' abord notamment Khalifa Sall ak Ousmane Sonko nga xam ne ñoom ñooy leader yi ñu gën a ràññee ci boobu coalition lan nga mën a indi ci leeral ci loolu. no c' est à dire kenn jéemul yeewi askan c' est à dire yeewu askan moo door la tey ku nekk. no mais xam nga ci sens bi ma ko waxee rek mu sens wu yeewi d' abord ñoom fi mu nekk nii justice jatang na leen tënk na leen. no non non c' est différent aujourd'hui Ousmane Sonko dara euh, jatangu ko. il a encore tous ses droits mun na nekk électeur mun na nekk éligible mun na nekk leneen ñi nga xam ne ñoo bokk sort à ce niveau là et vraiment ça aussi c'est même pas vrai tey rien n'empêche normalement à Khalifa Sall et à à Karim ñu nekk candidat je le di encore et je le répète je suis pas le seul à le dire euh, euh, loi bi wax na ko ay euh, juriste wax nañ ko ay borom xam-xam yu bëri wax nañ ko amul dara lu leen di aaye aujourd'hui ñu nekk ñu nekk ko li xew non comme comme les yi waxoon ci CREI que ni taxawul warul mën a atte Karim Wade loolu dégg nañ ko terewul atte na ko tëj na ko waaye donc donc Khalifa Sall aussi juriste wax nañ ni caisse d'avance la nekkul euh, voilà quoi nekkul fonds politique mais atte nañ ko tëj nañ ko donc boo ma bëggee téye ci loolu itam xam nga loolu dañ ciy gën a tardé je reconnais le fait on ne peut pas avoir de divergence sur ce point là je l'ai vécu de l'intérieur mënul am problème si loolu je veux dire y le cas là mais quand même je une pen boo mën a appliquer nit Sénégal aujourd'hui au bout de cinq ans cette personne là day recourir parce que nit kenn mënu ko condamner indéfiniment benn deuxièmement nit aussi mënoo ñëw condamner nit ay une peine boo xamante ne ab juge waxu ko gis nga li ñuy reproché aujourd'hui à Khalifa Sall ne moo tax mënul nekk candidat di ko reproché à Karim Wade ne mënut a nekk candidat la même loi propose nañ ko au conseil constitutionnel français mu annuler la loi en disant que cette la constitution parce que nit mënoo koo jët jël juger ko atte ko si loo xamante ne ab juge décidé wu ko principe d' individualisation des peines moo tax buñ Macky Sall indee experts internationaux yi ñu ñëw xool loi bi dañ ne ko ñaari article dindi ko parce que conforme ak la constitution mu ne moom di ko dindi parce que fii la ko fekk bu dee loolu la loo fi fekk doo ko dindi kon effectivement on n'avancera pas donc je damay taxaw si loolu pare parce qu'il faut marquer le coup sur le nga xam ne moom moo ci des oui c'est une bataille moo tax ma wax sànq ne la le fait que ñu ànd ñun ñëpp ensemble demandoo élection ensemble dafa ñu jox benn moyen aussi bu ñu demee aux législatives ñu am possibilité ñun si suñu biir changer la loi au niveau de l'Assemblée nationale mm-hmm. en créant benn kii xam nga am na loo xamante ne ñu bëri nañu d'accorduñ si ñi nañu bëgguñu ñu defal leen amnistie ñee neen révision la ñu bëgg parce que amnistie mooy dañu ñëwee effacer comme su fekkante noonu yaa ko def ñu wax la loolu donc la meilleure façon ku mën na def sa voie de recours après nga def ko mooy les deux lois articles uniques uniques yi nga xam ne moo nekk bi on les enlève. d'accord alors wax nga ko wax nga ko ñee mooy Karim Wade ñoom révision la wax waxuñu amnistie dañu